même même je ne pense pas que ku nekk kenn warul mën a souhaiter loolu Pape Moussa. que Sénégal yàqu wala ñu defar matériel boo xam ne par exemple comme il dit ah fu mu daanelee noonu. loolu mooy tax nit ñi gën a ci économiquement économiquement si on ne travaille pas si les gens kenn ñemewul génn kenn jàngiwul parce que ça fait une semaine par exemple à Ziguinchor kenn jàngiwul donc ce sont des euh, des conséquences. de de de de ces actualités politiques là. waaw qui sont qui sont déplorables. waaw mën na bañ a doon ça ça peut être politico-judiciaire. en même hmm. temps euh, d'autant plus que nee naa looloo tax ma ne procès bi dépassé na Ousmane Sonko ak Adji Sarr. parce que après les milliards yi nga xamante ne moom lañ yàq ay nit dee nañ ci. 17 hmm. personnes ay ñeneen ñàkk seen liggéey ñi ñàkk seen i cër ainsi de suite ci loo xamante ne je pense que ni euh, justice mu ngi régler bu dee sur le cas concret d'un viol mu ngi régler des cas comme ça maintenant effectivement ça dafa dafa dafa nekk un acteur politique. politique euh, mu doon loo xamante ne mën na impacter toute sa carrière politique maa ngi doon rappeler ci conséquence wu euh, buñ ko daanee perte mairie Ziguinchor mm-hmm. il ne peut plus être candidat à quoi que ce soit mm-hmm. ainsi de suite ainsi de suite donc euh, te aujourd'hui tamit ñu ngi naan mën na bañ a ñëw c'est-à-dire éventuellement Euh, jugement par contumace parce que loolu tamit article 240 euh, code de procédure pénale wax na ko mm-hmm. mais foofu aussi c'est encore beaucoup plus risqué parce que <laughs> buñ la ci daanee mënoo def appel sauf si tu te constitues prisonnier. Hmm. pour mën a def appel ça n'a pas de sens te nit ñi dañuy fàtte ne jugement par contumace moom mu ngi koy rappelé moom Ousmane Sonko mu ni bu ñu ko jugé par contumace mën nañ ko acquitter effectivement c'est possible. Hmm. mais même bu ñu ko acquitter dootul bokkati. parce que article L29 dafa ne mënatoo inscrire définitivement ku ñu jugé par contumace waxuñ ku ñu condamné de. ku ñu jugé par contumace donc moo niveau d'information ak euh, ñi ma dégganteel ci entourage am. vers ses avocats ainsi de suite jàpp naa ni suba dina dem wuy ji dina dem wuy ji euh, maintenant mais lan moo waral parce que boo xëyee nga ne ñëpp nañ ma nañ ma nañ ma euh, ànd ak man avec toute la popularité que draine Ousmane Sonko cité Kër Góor gi nga jaar VDN jël avenue Cheikh Anta jaar université Sam Sandaga ba yow guddi yegg de doo yegg ab bu dee ful moom moo la ah doolu mënul nekk donc moo tax ma jox leen euh, solution bu simple euh, am na avocat bu dëkk fu sorewul euh, tribunal na dem fanaani foofu bu xëyee jël benn oto. banaan moo gën a simple de. c'est plus simple que ça. coow lu jibbal du tàkkate li nga xamante ne moom la Sénégal yi bëgg mu leer dina dina dina leer.